gisoon naa Pape Thiam wàcc na ñu ngi nuyu Pape Diop je sais pas am question. loo si bëgg a wax jërëjëf fi boobu moom dina am solo muy gàddu gi ak mën na Mor sëñ Mor Mor Mbaye fekk na ma ngi yéeg ak moom bu ne ma dafa jàpp tamit. waaw Babacar neen dafa jàpp. dafa feebal dafa feebar euh, Pape Diop. ñu ngi lay nuyu man la monsieur Faye kon ñu ko yàlla ngi siyaar. ñu ñu ngi lay ñu ngi delloo ziar ñu ngi lay déglu est-ce que da ngi lay siyaar. jërëjëf jën yi. jën yi ñu fi. talaar yi seen jërëjëf. d'accord waaw man nag dama xaw a yéex a dugg ah dama yéex a dugg dama euh, kii bi yàgg na commencé quoi et puis pour mën a xam. Uh, commencé na depuis cinq après est-ce que yow da nga am eh, question yo bugg a par rapport ak bitcoin wala li jëm si crypto-monnaie yi. waa amoon naa ko nag amoon naa ko surtout ci affaire minage bi parce que man j'étais un peu intéressé par mi def minage quoi mais dañ ma wax ne ma c'est trop cher ça pour que rentable quoi loolu la ñu wax yow tax sànq maa lay dégg nga yaa ngi ni bon ça bon rentable na quoi am na xaalis ak yu mel noonu alors que man ma amoon dañ ne c'est pas c'est pas un quoi. waaw léegi beneen yoon euh, maa ngi lay mute parce que dama dégg sama bopp donc beneen yoon keneen su nee c'est pas rentable <coughs> pardon da nga koy wax mu génnee chiffres yi euh, man au tout début loolu laa foogoon parce que loolu moo nekkoon discours bi mais après je me suis rendu compte que c'était plutôt une technique pour bañ dugal nit yi si minage parce que su fekkee c'est centralisé kon kooku noonu day gën a am day gën am ay bénéf quoi day mel ni par exemple imaginons benn koñ wala benn dëkk benn jaaykatu ginaar rek moo si nekk kooku mën na jaay ay ginaaram lu ko neex te saa yu ko laajee na la xaalis amul tu vois donc man bi ma defee loolu dama ni man au lieu ma damaa bëgg man ma xamal sama bopp en dama jël benn étudiant wu polytechnique boo xam ne moom il a fait des études lépp lu jëm si électricité énergie ñu liggéey pendant deux donc. Euh, mu defaral ma étude marché wu électricité wu Sénégal bi yëpp instant yi mun naa la wax électricité bi fu ñu koy produire nan lay jaar fan lay jaar ba yegg si si këru nit yi mais aussi mun naa la wax prix yi tu vois man xam naa prix wu électricité bi Sénégal peu importe tranche bi xam naa prix wu machine yooyu noonu xam naa machine yooyu noonu parce que moom tamit bokk na si ay calculam bokkoon na si liggéeyam machine yooyu ñaata lay consomé par weer ñu def loolu lépp man la benn machine boo xam ni soo ko jëndee huit mille dollars neuf mille dollars environ au bout de huit mois su fekkee dafay tourne vingt quatre heures sur vingt quatre ba pare yaa ngi koy toppatoo bu baax en fait amortir nga ko ça veut dire que au bout de huit mois tu te retrouves avec huit mille dollars peut-être su fekkoon genre y avait pas de charge tu mais lii c'est avec ngay fay say charge donc c'est rentable je trouve après nag franchement benn affaire la boo xam ne il faut nit ki dem renseigner wul boppam kuy dugg si ménage il faut nga xam bitcoin nu muy doxee il faut nga am kenn koo xam ni les spécialistes de la sécurité parce que ku dem ba miné ça veut dire que yow tu es après avoir ay bitcoin yu bëri et tu es censé te défendre par rapport ak attaquants yi parce que ñoom loolu rek la ñuy xaar et aussi tu es censé voilà suivre bitcoin histoire pas histoire bi mais information yi nekk autour de telle sorte que yow tu peux anticiper kañ ngay jaay say bitcoin soo leen xasee ba miner a kañ nga dul jaay tu vois donc euh, c'est vraiment un vrai travail quoi de recherche. xaw ma ndax répondre na la. waaw waaw waaw d'accord j'ai compris comme waaw li nga wax noonu moom man loolu laa gëmoon sax parce que déjà man dama doon renseigné wu mais dama doon gis ni ñu ci dugg am na ñoo xam dañ ciy dugg yor seen kër am fa benn machine mais dañ dañ ci doon am xaalis dañ ci am xaalis quoi. da ngay gis sax da au bout de quelque temps rek gis ñu def extension aussi amee benn machine dañuy obligé utal beneen machine donc bi ma renseigné woo ñun mënoo c'est pas rentable affaire yooyu affaire daf ma xawoon jaaxal nag quoi bon léegi par exemple man euh, dama am objectif pour investir ci bitcoin quoi soit par minage wala wala wala wala may def euh, en fait mu jënd ay bitcoin comme ni ñuy def jënd bitcoin soo gisee su évoluer peut-être nga jaay ko wala noonu. donc beneen côté bi mooy comme boobu noonu loolu aussi est-ce que na et puis nan lay nan lay doxee nan lay doxee ak euh, ku ci bëgg jënd comme nga bëgg a jënd bitcoin xool du ko après nga jaayaat ko euh, à peu près minimum investissement bi ñaata la mën a doon. non minimum moom amul après boo man du ma joxe ay conseils financier quand même c'est-à-dire que damay wax rek juste que pour jënd bitcoin nii la. maanaam pour jënd bitcoin c'est comme ni ma ko waxee sànq da nga am moyen peer to peer maanaam dem directement si nit via ay réseaux sociaux nga dem jënd directement si moom wala nga utiliser ay solution peer to peer mais solution peer to peer la plupart du temps c'est pas vraiment peer to peer wala boog c'est destiné à l'Europe wala aux États-Unis wala nga jaar si broker yi exchange yi ay Binance ay Paxful ak yooyu tu vois loolu mooy moyen bi pour mën a jënd ay bi bitcoin nit ki en fait parfois da ngay gis yenn crypto-monnaie yi ils des trois cent pour cent quatre cent pour cent en en un mois xam nga après ñu dee parce que la plupart du temps ay ay fraude la quoi bitcoin c' est un actif vraiment tangible mën na jël cent pour cent en un mois comme mun na perdre quatre vingt cinq pour cent sur quelques mois parce que ça dépend si information yi nit yi di distiller ça ça dépend si intérêt wu nit yi ça dépend si recherche Google yi ça dépend de plein de choses donc euh, voilà quoi loolu laa la mën a wax genre après yaay xool tamit la moo la si tax a dugg tu vois si c'est <coughs> pardon si c'est pour faire un retour sur investissement conséquent da ngay garder lu bëri parce que par exemple ki jundoon bitcoin en janvier deux mille vingt à trois mille dollars su ko jundoon benn à l'époque instant bi nii c'est à soixante cinq mille dollars kii nii gis na si boppam mais dafa xaar deux ans yoo xam ne peut-être laalu ko tu vois bitcoin la plupart du temps c'est comme ça ay cycle de trois quatre ans la yoo xam ni c'est collé par rapport li ñu woowee halving donc loolu laa la mën jox comme information quoi. d'accord d'accord merci mais Sénégal fii moom amul amul amul réseau bitcoin réseau boo xam ne par exemple. ku bëgg investir mën nga dem joindre leen surtout koo xam ne amul ci yenn notion yi quoi amul ci yenn information yi c'est tellement complexe dafa xaw a bëri ay ay ay théorie non am na man dinaa la bind si kalam jox euh, page telegram boo xam mun mën nga dem nga post sa annonce wala su fekkee nit directement après nag un seul conseil laay joxe mooy sooy demee di jënd si nit surtout Sénégal gisante nit ki déjà yow déjà amal sa portefeuille numérique boo xam ne yow bind nga douze mois yi mooy say clé privée nga xam ne soo leen gisantee nga xam ne soo leen gisantee euh, balaa nga kaa jox sa xaalis moom mu génnee téléphone am mu viréel la bitcoin yow nga gis ko nii nii ni ko yegg si na sa téléphone tu nga xaar deux trois confirmations voire six confirmations avant nga koy jox sa xaalis comme ça ngeen toog ngeen jël seen temps ngeen naan seen ataaya wala jël seen café mais bitcoin il faut jamais à distance c'est un peu difficile waaw il faut vraiment nga xam nit ki wala nga woolu ko wala mu am une certaine réputation donc mon groupe Telegram mu ma lay wax nii y des gens avec une certaine réputation maintenant il faut tout le temps faire attention quoi. d'accord d'accord euh, beneen question bi xawoon am na moom par exemple laaj bi ñëwaat naa donc bu ko waxee léegi actuellement actuellement fi évolution bi toll ah. Euh, fan la tendance doon c'est-à-dire que c'est toujours rentable nit ki est-ce que c'est am na tendance rentable boo xam ni nit ki mën na exemple fii ak deux ans a yokk maanaam fii ak est-ce que prospection yi wane na ni moom day gën a yokk wala day gën a wàññi moo ci gën a probable. bon moment yëpp c'est le bon moment parce que ki nga xam ni en 2014 dafa jëndoon bitcoin à 1000 dollars après jékki-jékki bitcoin bi wàcc wàcc wàcc wàcc bi ay 8 dollars 9 kooku foogoon na ni perte na. alors que quelques années après il s'est retrouvé avec un bitcoin à dix neuf mille dollars en 2017 tamit ki jundoon un bitcoin à dix neuf mille dollars affaire bi wàcc ba trois mille dollars foogoon na ni perte na alors que su gardé woon trois quatre ans il se retrouvé avec un bitcoin à soixante cinq mille dollars donc y a pas de bon moment y a pas de yow instant bi ngay dugal sa xaalis na nekk benn xaalis boo xam ne tu te dis lii mën naa ko bàyyi muy nelaw pendant deux ans trois ans quatre ans tu vois et peu importe <laughs> chute yi ngay gis si prix bitcoin bi bul jaay bul paniquer ko tu vois fee c'est par euh, ñuy wooye les investisseurs institutionnels mooy ñi nga xam ne ils possèdent des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de bitcoin donc euh, loolaa la mën a jox comme conseil aussi. affaire bi dama benn kii euh, il am patience tuuti si côté boobu noonu mooy yéeg a ñu bëri nag loolu moo leen di tiital. Hmm. parfois dañuy gis affaire wàcce rek ne damay perte. xaaruma jaay ko te li ngay wax ni euh, Nourou kii defoon na ko fa Elon Musk il y a mois ba mu daanalee kii bi fexe na ba influencer bitcoin bi ba mu daanu moo tax man ñooñu du ma leen déglu sax <laughs> genre nit ñi ay dem leen Dogecoin wala affaire yooyu man moom may dafa sama analyse bopp daal xool graphique bi il y a cinq ans ndax affaire moo ngi évoluer wala day gën di wàcc foofu lay xoolee ma xam ne lii am na futur wala amul futur. si li nga wax dëgg la gars yi dañuy manipuler marché bi donc euh, si si wàllum bitcoin on dit tout le temps deux choses not your not your bitcoin maanaam su fekkee yow say clé privée déteniroo leen bitcoin yooyu noonu moom leen te loolu moo xew a exchange yi deuxième bi mooy don't trust verify bul woolu kenn c'est-à-dire peu importe lu fi nuuru mënta wax. demal vérifier sa bopp peu importe keneen lu mu fi mënta wax demal vérifier sa bopp parce que on change de paradigme su ma nee on change de paradigme dañoo vivre pendant longtemps si suñu xaalis banque bi moo koy gardé ñun on genre nit yu bëri duñu sax toppatoo lan mooy xaalis xaalis nan lay doxee xam nga taux de change yeeg yooyu seen yoon nekku si la bitcoin ku si xa ku si bëgg a dugg en tout cas tu es obligé de faire tes propres recherches. tu es obligé de te faire confiance. Voilà, tu es obligé, en fait, de, voilà quoi, de, d'être responsable financièrement. Là, on parle d'autonomie financière, on parle de souveraineté financière. Donc, changement de paradigme, noon non. Et ça, peut-être, nous sommes une phase de transition, mais nous sommes petit à petit, quoi. Je sais pas, nous avons une question, grand pape. Et merci pour contribution de tout le ñoo ngi dem si Mor Mbaye après ñu ngi dem si Pape Thiam. Eh, salaamaaleykum. salaam. ça va na ngeen def ça va. sant yàlla. Eh, waaw Baye naka mu. ñu jaar bu baax en fait bon <coughs> comme papa mooy si si venu tardivement bon suivre débat bi. donc euh, mu nekk aussi sujet bu ma intéressé parce que euh, temps yëpp j'ai des amis qui qui qui par parlent là-dessus quoi donc depuis hier bon j'ai rencontré quelqu'un qui qui m'a dit que boobu ba xam-xam nga bitcoin te ma ne ko non affaire bitcoin yooyu vraiment à part l'avènement de Bitcoin ci laa ko ci laa ko découvert décou découvert depuis lors bon def ma ci benn recherche affaire yooyu quoi donc il voulait que ma na ko dafa war a ubbi benn compte je sais pas Pi. Euh, bon je lui ai dit que non man loolu je je vais donc balaa may installer benn application sama téléphone ba ci dugg affaire kon donc foog ma def samay propre recherche d'abord xam euh, système bi lan la quoi c'est c'est c'est lan mooy objectif yi ak comment ça marche avant que ma siy dugg donc euh, dëkk ci laa gis room bi mu ne bon ça fait l'occasion mën naa ñëw poser question bi. donc j'ai pas encore commencé à faire les recherches donc xamaguma si benn benn benn si lu bëri daal donc ma bëggoon xam bon Pi c'est une application Bitcoin la et puis système de parrainage boobu noonu comment ça marche donc ak côté investissement bi aussi moo mi ngi ma ko doon wax donc naka la ñu mën a investir si affaire boobu noonu quoi loolu question bi lek deuxième question bi. par rapport ak intervention bi nga def léegi donc mu mel ni que li nit ñuy wax rek la confiance n'exclut pas le contrôle mais d'habitude dans les autres systèmes comme le système des cartes bancaires wala système téléphonique bon dafay am benn convention ñoo xam ne nga ñoo ko tëral en place teg ko mu am ay charte yu leer que ni yow yow mi ciy bëgg investir sax soxlawul nga ciy def yenn recherche yi da ngay ñëw en avec kii bi structure dafay nekk lu lu ñu teg ba pare mu am document ñu jox la da ngay lire comprendre nga investir mais comme ni mu lay déggee c'est comme si que amul benn convention bu ñu teg nga xamante ni yow tel euh, par exemple euh, euh, kenn benn nit mën na jógee fële ñëw investir si. donc day hmm. laaj forcément moom mu def ay propres recherche xam que li muy dugg et puis méfiance bi pour man d'après ni ma déggee ngay wax dafa xaw a bëri quoi du coup loolu est-ce que du inconvénient quoi. si merci grand ñaari question yi intéressante et damay commencer par cette deuxième question bi loolu c'est ce sera en lien juste avec li ma wax léegi nii mooy changement de paradigme bitcoin c'est autre chose euh, su ma jëlee exemple or xam nga or instant bi nii ku ko bëgg da ngay dem fële ca Tambacounda su minier nga gas nga wër or amul kenn koo xam ne da ngay dem laaj ko autorisation pour gas pour am or après am na yenn endroit yoo xam ni il faut nga moomal ko sa bopp maanaam dangay ngay dem jënd sa terrain wu bopp après sa terrain lu la def si gas ba fajar soo trouvé or bi lan ngay def nga dem jaay ko wala nga dem transformer ko nga def ko euh, chaîne wala et cetera ba bitcoin c'est un maanaam c'est juste un actif qui est pour permettre à nit yi comme or ni ko doon euh, jëndee pour mën a garder seen alal bitcoin nit yi dañuy dem miner ko wala jënd ko pour garder seen alal tu donc convention su amee peut-être si code bi lay nekk mooy protocole bi ma doon wax sànq te loolu c'est open source maanaam képp ku am ay compétence informatique mën nga dem nga liiral sa boppu code bi nga xamal ko sa bopp ça fait depuis treize ans yoo xam ne nit yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi awante foofu noonu ci code bi di vérifier di améliorer di auditer di tester ñu bëri tamit jëm nañ attaquer réseau bi ak donc protocole boobu moo am léegi nag soo bëggee xam bi bitcoin il faut nga dellu si philosophie yu cypherpunk si maanaam ñoom dañoo ñëw pour protéger nit yi contre lan mooy contre justement structure yi nga xam ne yaa a des conventions instant bi nii banque banque day jaay ay produits financier banque day jaay nit yi ay crédit crédit ce sont des produits financiers mais kan mooy dem di laaj crédit liir document yëpp yi nga xam ne banque bi moom la ko jox simple sax kan mooy dem di ubbi compte lire document yëpp yi nekk ci contrat bi lay lié yow ak banque bi personne ne fait ça tu vois pourtant nag banque yeeg yooyu moom la ñuy naxee nit yi moom nga jékki-jékki gars yi fëgg la benn ñaata mille francs CFA de frais de gestion de ton compte soo kaase ñu ne la mais yow yaa ko signé effectivement yow yaa ko signé nit ki day dem laaj ci crédit loolu moo xewoon en 2008 aux États-Unis bu muy signé mu gis 2 pour cent de taux d'intérêt mais lii rul en fait ci biir dañ ko ni taux d'intérêt yi c'est variable day jékki-jékki il se retrouve avec 15 pour cent de taux d'intérêt à payer par mois mënatul fay banque bi saisir këram donc bit bitcoin dafa ñëw ne man c'est un système transparent loolu mooy vraie transparence bi da ngay yónnee di jot di garder di sécuriser sa bopp ak sa clé loolu, ça me permet de répondre à première question. Si biir Bitcoin, il n'y a pas de parrainage. Il n'y a pas ça. ku la neex da ngay dem nga jënd sa Bitcoin. man quand j'entends parler de parrainage Ponzi laay ñi ko xalaat mooy li xewoon par rapport ak PetronPay la dernière fois et et ça c'est un des problèmes de Bitcoin maanaam à chaque fois nit yi suñ ko déggee c'est parce que ay solution yu def fraude ñoo koy utiliser pour nëbbatu ci gannaaw loolu qu'est-ce que ça c'est que Bitcoin tamit c'est un bon moyen pour préserver sa vie privée sa vie financière en tout cas léegi une application qui te dit da nga war a parrainer nit pour mu dugg j'imagine que pour nga dugg da nga war a jënd ay Bitcoin nag yooyu loolu c'est un schéma de Ponzi classique c'est-à-dire ki mujjee dugg kooku mooy perte ki si siy dugal kooku day gagné xaalis yow xaalis boobu noonu ngay dugal et au final à chaque fois que dañuy fay nit c'est parce que dañoo jël xaalisu ki mujjee dugg système boobu noonu day wadd te loolu moo xewoon donc ak Petronpay euh, loolu moo xewoon ak euh, benn Madoff loolu moo xewoon ak ñu bëri bëri tu donc man je xawma application boobu noonu mais daal je di dis un truc simple pour jënd bitcoin da ngay dem si nit mu jaay la bitcoin pour jënd bitcoin da ngay dem si ay site internet yu ñuy wooye les exchanges ñoo xam ne ay broker lañu c'est comme nga dem marché nit ki nekk day jaay bitcoin a ah, son prix te loolu ay sit internet la instant bi nii nga jënd ko foofu mais y pas de système de parrainage y a je sais pas ndax répondre naa sa question. ok c'est c'est c'est bien merci merci man naa benn question. ñoo ko bokk waa grand xaaral on le dans l'ordre instant yi Pape Thiam ma war après ñu ñëw si salaam gars ziar naa leen rek. delloo man par rapport ak euh, mise à jour bu démb bi <coughs> wax sànq parce que effectivement man j'avais ça en tête parce que jotoon naa gis ne dañuy def mise à jour mais malheureusement affaire bi daf ma jotoon mais bon au delà de li nga expliqué sànq mooy euh, rapidité beeg euh, baisse de coût frais transaction yi plus anonymement bu muy proposé ay jamono si ginnaaw dama jotoon diir. ñu ne ko prochaine mise à jour BTC bi a pour but de un peu s'aligner si Ethereum maanaam service yi nga xam moom la Ethereum di proposé genre staking loan yi nga xamante ni bon DeFi bi quoi donc ma bëggoon xam si parce que sa explication jotuma dégg nga wax si loolu noonu donc ma xam si effectivement euh, noonu la demee quoi léegi ndax BTC euh, bi dafay proposé DeFi comme Ethereum jërëjëf Euh, loolu je pense que c'est une question d'interprétation parce que comme li ma wax sànq pour wax naa ko rapidement ma ni étant donné que léegi duñ mën a différencier signature yu benn transaction classique ak signature yu benn transaction avec plusieurs justement signature wala ay signature ou transaction complexe loolu ça va permettre quoi de nit yi mën a tabax ay contrat intelligence ci kaw bitcoin même su fekkee une transaction bitcoin déjà c'est un smart donc nit yi ñooy waxee noonu pour interpréter noonu tu vois mais tu sais que avant même affaire bii nii tu des gens yoo xam ni ils ont bâti des sociétés pour construire des smart contracts sur Bitcoin am na benn bu si tudd Stacks s t a c am na beneen projet bu tudd RBF boo xam ne ñoom tamit ils sont en train de bosser là-dessus xaaruñu mise à jour bii nii donc lii je c'est juste un discours pour tout le temps nit yi dañuy jéem a mettre en valeur Ethereum mais encore une fois Ethereum amul leen lu mu indi loo xam ne Bitcoin amu ko woon wala amul leen lu mu indi loo xam ne Bitcoin amu ko woon ba pare am na valeur quoi donc Pape pour répondre sa question réellement ay solution DeFi ak yooyu ça base ça se base sur des smart contracts donc contrat yoo xam ne nga leen di codé mise à jour Taproot dina faciliter. même su amoon na ba pare mais dina faciliter création smart contract sur Bitcoin mais c'est par là que sa a commencé je pense pas que loolu mooy objectif bu Bitcoin après nag ku nekk dina ñëw créer sa business dessus mais du loolu mooy objectif bu premier wu Taproot objectif premier wu Taproot c'était augmenter taayu bloc yi mais aussi préserver sécurité wu wala anonymat wu nit yi quoi comme ça ay entreprise comme Chainalysis Theorem Labs du ñu nekk di analyser blockchain u Bitcoin quoi grosso Parce que sama contractus bitcoin bi moom jotoon naa ko euh, découvrir bu mais bi pas def ma xawoon def équation juste parce que dañ ne woon objectif bi de principal bi mooy aligné noonu quoi moo taxoon ma bëggoon leerlu si affaire bi mais leer na nañ jaajëf. ñoo ko bokk grand donc Maaz ngi lay jox la parole. Euh, merci beaucoup Nourou. salaamaaleykum. maaleykum salaam en fait est-ce que. question bi a déjà été posée ou pas. Donc, en fait, moi, je, je m'intéresse un peu petit à petit à tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est crypto. Donc, euh, je pense bien essayer de, de goûter Bitcoin, mais euh, j'essaie en fait de faire des recherches dessus. Des mots à faire un peu pour me documenter quoi. Donc, de me dire comme def les bases. De me dire souvent en fait, de me lire ben, ben article, souvent en fait, système crypto, ça se base sur faire rentrer des personnes comme un peu pyramide de Ponzi bi comme li am ak Petronpay yooyu bu fekkee le système il repose uniquement sur ça vraiment c'est un système où il faut maanaam lu jara jara moytu la quoi du ko damay deg souvent ñu ne bitcoin yi day baax nga xam c'est quoi le projet en fait donc man loolu laa bëggoon xam c'est maanaam la lañ bëgg wax par par projet bitcoin bi en fait quest que quest que ça fait nan ngay nan ngay <coughs> kii euh, projet bi et comment fait le projet la yow nan la mën a jouer un peu sur, euh, sur peut-être la, la, pérennité en fait de, du, du, du, crypto. Quoi. Je n'ai pas compris en fait le, le, concept de projet, crypto, tout ça. Même là, vous poser un peu comme comme ma, ma, première question. Quoi. Merci Mas, merci. Euh, question bi lan mooy projet wu Bitcoin donc moom la ñu waxoon au tout début mooy philosophie bi toujours mooy un système de paiement peer to peer sans intermédiaire Euh, dañoo nekkoon si benn monde en tout cas bi bitcoin di fël boo xam ni yow soo nekkee Chine nit ki nekk Sénégal wala nga nekk France nit ki nekk Madagascar soo ko bëggoon yónnee xaalis da ngay def virement bancaire soo deful virement bancaire da ngay jox nit liquide mu yóbbu ko foofu wala nga jox nit liquide dëkk bi nga nekk mu garde ko foofu mu woo kenn dëkk bële ne kii joxal ma kii tu mais en tout cas si système occidental bi c'était plus virement bancaire virement bancaire yoo xam ni tu es obligé de jaar ci benn entité centrale entité centrale yi lan la woon mooy banque yi wala établissement yi nga xam ni il faut ça mooy ay Western Union ay MoneyGram ay Ria et cetera léegi lan mooy dérive loolu mooy que banque yi ñoom si ñoom ngay denc sa xaalis parce que suba di nga ko soxla yónnee wala suba di ko soxla ñu yónnee la donc foofu ngay denc sa xaalis mais problème bi mooy banque yi dañuy jël sa xaalis ñu foo ci ñu parier si di si gagné lu bëri après ñu jox la un pour cent et que loolu moo tax tamit banque yi dañuy jël sa xaalis ñoom ñu dem àbb xaalis bu dul jeex banque centrale parce que dañuy perte tout le temps seeni pari tu vois loolu mooy un deux mooy banque bi puisque yow pour nga ibbi sa compte foofu tu es obligé de lui donner toutes les informations day xam sa àdduna bi yëpp. dina xam fan ngay dugal sa xaalis dina xam yow kan nga ko sekkal ak kan nga ko sekkul dina xam yow lan mooy say obi fan ngay jëndee yére fan ngay jëndee lu nekk donc banque bi dalay xam mieux même que yow ni nga xamee sa bopp loolu quest que ça permet yi day information yooyu noonu si ay marque marque yi tamit di la def ay publicité cible troisième bi mooy problème mu liberté wu nit ki maanaam yow Mass danga nga danga nekk entrepreneur nga war a jot cinquante mille euro de kenn nga dugal ko sa compte maanaam nit ki yónnee la ko virement banque bi gis somme bi ne somme bi dafa élevé lu muy njëkk def mooy da koy bloqué peut-être que yow da nga soxla woon xaalis mais da koy bloqué après mu ñëw laaj lay information soo ko yónnee information yi moom mooy xool est-ce que neex na ko wala neexu ko moom mooy xool est-ce que lii dalal na xelam wala dalul xelam man dama xam kenn koo xam ni il soixante mille euros ci comptam parce que c'était dans son dans le cadre de son business banque bi dafa tëj comptam jox ko chèque ni que dama wuti beneen compte donc loolu c'est un peu les dérives de la centralisation su fekkoon ñun ñëpp dañu waroon jaar ci kenn pour am dara kooku dafay am doole trop te lu ko neex def te même suba su daanoo ñun ñëpp si siy gaañu donc système bitcoin bi c'est quoi benn moyen boo xam ni nit ki mën na fa garder xaalisam déjà donc yow mën nga jël say euro say dollar say franc CFA say cedi say lu nekk nga dem transformer ko en bitcoin nga gàddeel ko sa bopp de telle sorte que suba banque su jékki-jékkee amatul si dëkk bi yow tu ne pas impacté su fekkee devise yooyu noonu dañoo perdre de la valeur yow tu ne pas impacté loolu mooy un deux la possibilité nga yónnee fu nekk dans le monde quand tu et en quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes, maximum quelques heures. Je me rappelle, man, bi ma doon doog a ñëw France à l'époque dama bëggoon def benn virement bancaire de 300 euros vers le Sénégal sama banque France daf ma jël 20 euros banque bi Sénégal jël 20 euros muy 40 euros il me restait 260 euros donc xaalis boobu gars yi di lekk c'est pas normal su ma bëggoon def virement boobu noonu en bitcoin du ma coûter en tout cas man damay décider sama bopp du ma coûter 1 euro. te loolu ce serait possible du ma coûter sax ay centime su ma jëlee Lightning Network mais loolu c'est une autre question donc liberté boobu noonu bitcoin moom lay offrir man maay garder sama bopp sama xaalis mën naa yónnee ku nekk fu nekk dans le monde et à des frais quasiment voilà inexistants troisième bi nag si man moom mooy bi gën a important loolu laajte woon naa ko maanaam quel est le prix ñaata nga doon fay soo buggoon am benn solution boo xam ni yow kenn du la mën a censurer xam nga fii gis nañ fi ñoo xam ne dañoo ñëw jékki-jékki soulever wu contre gouvernement yi gars yi dañoo tëj seeni compte gelé seeni avoir saisi seeni kër ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec rien du tout kenn mënul saisir say bitcoin yaa yor sa clé privée xanaa nit ki ñëw jot sa clé privée mais kenn mënul saisir say bitcoin mais loolu dans le monde où on vit aujourd'hui <laughs> quel le prix ci vois de ça là donc grosso modo lii mooy projet wu bitcoin étant donné que Bitcoin dafa ànd ak une certaine anonymat mais bon grand Babacar moom il parle de pseudonymisation tu vois maanaam c'est juste une série de chiffres et de lettres donc nit mën na nëbbatu si adresse su Bitcoin am kenn du mës a xam kan la donc fraudeurs yi dañ koy utiliser te loolu mooy système de Ponzi yi ma doon wax sànq fraudeurs yi dañuy utiliser Bitcoin parce que xam nañ ne dès lors que nit yi envoyé nañ ay Bitcoin duñu xam kan moo nekk ci gannaaw tu mais fraude yooyu c'est pas Bitcoin Bitcoin mooy li ma la wax nii et bien d'autres choses mais principal mooy li ma la wax nii et donc c'est ça le projet Bitcoin pour répondre à ta question quoi. ok c'est c'est très clair c'est très clair c'est na clair euh, mun juste benn question en fait vu qu'on est toujours sur les bases euh, dama lay aussi gars ñuy wax ay affaire DCA donc man j'ai compris que c'est des petits investissements réguliers yoo xam te mun nga ko def et puis euh, est-ce que est-ce que yow tu penses que loolu c'est pour un début, est-ce que c'est une bonne méthode ou est-ce qu'il y a mieux à, faire un peu pour commencer dessus waaw gars yi su ñuy wax DCA moy dans le cost average maanaam yow à chaque fois da ngay jënd euh, tous les débuts de mois xam nga à partir d'une certaine période et donc soo xaaree un an da ngay xool pas par rapport ak on va dire prix bitcoin avant mais c'est plus depuis bi nga commencé jënd <coughs> pardon donc loolu mooy dollar cost average mais au final c'est quoi c'est juste épargne gars yi dañoo jox terme bii nii pour faire un peu de marketing mais c'est c'est juste de l'épargne que ça soit une fois par mois toutes les semaines ou bien même tous les trois mois six mois c'est à ton rythme quoi mais dans tous les cas comme ni ko Toutmoses waxee il faut de la patience dans tout dans tous les investissements da ngay dugal sa xaalis ci Bitcoin il faut déjà que ça puisse à certains de mais su fekkee da nga bëgg a juste épargner investir da ngay dugal sa xaalis peu importe que ce soit tey démb wala suba et tu sois patient tu te donnes une nga jox sa bopp benn tu vois benn horizon de deux ans trois ans voire quatre ans et tu vas te retrouver avec voilà un retour sur investissement assez conséquent quoi loolu laa la mën a jox comme conseil quand même. ok merci beaucoup très ko bokk dem si Moussa Kayre. Moussa Josépha ndax yaa ngi dégg Moussa Kairé RS ok donc Baye Ibra salaam gaay salaam. salaam Baye Ibra après ñu dem si Rasoul. ok gars maa ngi ziar bu baax Nourou ñu ngi ziar. delloo ziar grand. Sénégal moom dimanche yéen xam service yi ci nekk fu tey ci mbedd mi laa nekkaat encore ni di wax ak yéen euh, au fait sax pourquoi may intervenir c'est par rapport à moi euh, poser benn question un peu euh, par rapport au kii ni application fii <coughs> ne me trompe pas léegi si laa bëggoon def benn intervention bu ndaw ko un peu à taquiner l'application euh, mais par rapport ak li nga ci expliquer euh, benn application la buy promouvoir benn crypto bon jéem naa xool white paper bi mais comprendre ma ci lu bëri mais li ma ci mën a wax daal mooy euh, on te permet de miner là-bas de miner des crypto-monnaies qui s'appellent Pi d'après eux léegi crypto-monnaie boobu comment tu peux miner il faut d'abord savoir que minage bi par téléphone lañ koy defee projet la euh, national xam na ko euh, lay dégg ñu lay waaw waaw euh, benn kii daal bu ma liiroon boo xam ne on te permet de miner des cryptomonnaies qui s'appellent mais par téléphone léegi pour que miner ko il faut am ku la pare il faut am personnellement ku la parrainé léegi nag xam naa ne yow ki la waxoon ne dafa bëggoon nga nga nga nga commande yi nga ñëw mu parrainé la kooku dafa bëggoon yokku ses ses ses son taux de hachage parce que pour nga mën a am taux de hachage bu kawe il faut nga parrainer le maximum de personnes possible da ngay commencer pionnier nekk contributeur avant d'être ambassadeur léegi loolu ça dépend du nombre de personnes yi nga xam ne moom ngay yor léegi moom xam naa à nag loolu la soxla woon moo taxoon mu ne la soo buggee moom mën na la parrainer comme ça yow ngay ngay ngay mën di kii ngay mën nga mën a utiliser Pi mais personnellement man je déconseille Pi bon je je conseille personne nag mais man li ma ci dund laay wax quoi parce que apparemment il faut nga joxe sa numéro téléphone ñu vérifier ko benen problème bu ma si gis comme inconvénient mooy ba léegi kenn listé wul Pi euh, projet bi kenn audité wu ko. teg si aussi à la fin jour buñ ko audité woon ba def ko par quel moyen nga mën a jaar pour retirer ko donc euh, contribution bu ndaw boobu rek laa bëggoon def après mu rejoindre nu li mu ci wax te wax ne il faut faire attention surtout avec certains projets bon je ne sais pas man mais man wóoluwuma ko moom personnellement et je déconseille les gens daal wala suñ siy dem nañ ci demee ndànk quoi parce que loo xam ne say données la lay laaj personnel pour mu mun la jël en compte si minage bi man j'évite ok am na solo trop eh, benn question est-ce que ñoom dañ lay laaj nga joxe ay bitcoin wala ay cryptomonnaie. non xaaral non non am naa ko am naa ko waaw ñu laaj ñu dara c'est minage bi c'est gratuit mais contrepartie bi mooy il faut nga ut ñooy il faut nga yokk nombre de personnes yi à chaque fois pour sa minage kawe beneen bi mooy il faut nga euh, vérifier lu say say say say données. waay en fait. le truc mooy que. en fait xaaral ma leeral am am naa affaire maanaam c'est un projet universitaire en Amérique bu mu nekk sax amagul c'est expérimental quoi amul du ça n'a rien à voir la bitcoin quoi benn projet expérimental la boo xam ni voilà ñu si bëgg pour l'instant daf mel ne comme bitcoin bu daw commencé benn benn affaire bu ndaw si téléphone la quoi. am naa sama téléphone bay mii ne effectivement no la demee quoi mais du question pour jënd njaay wut xaalis noonu pour noonu noonu projet expérimental rek bu ndaw. bu jug benn église américaine. mais c'est ça qui est bizarre parce que minage à la base c'est pour valider des transactions lan ngay mii nekkoon. en fait euh, da ngay am ay ay genre ngay am quoi en fait à travers le système de l'université quoi. waaw loolu laa wax ma ni normalement système yëpp yi ngay gis euh, parce que consensus yu bëri na am ngay pour of work proof of stake proof of leneen ak leneen mais à la base c'est pour valider des transactions. ci wàllum ko c'est pour valider des transactions quoi. donc su fekkee da ngay miine benn affaire boo xam ni pour le moment y a même pas de transaction qu'est-ce que la personne mine genre pourquoi la personne mine laa bëgg a quoi. Euh, je, pense que ça n'a rien à pour l'instant quoi. Ouais. Ça la blockchain. C'est un projet au niveau de l'université. Bon, man, man, non, faut, faut éviter ces genres de trucs-là. Mais bon, chacun est responsable. Man, man, installé euh, naa ko, ça fait est-ce que préparé wuñu seen CBDC bi ñoom américain non lii c'est bien avant les CBDC enfin peut-être quelque chose comme ça parce que ba dee xool aussi euh, université MIT ñooy ak Federal Reserve que Amérique xam waaw xam na Federal gouvernement la MIT Boston lay te ñoom américains yi bu ñuy commencé expériment université yi nañ koy ñëkk defee boo booy réussir après seeni indi projet ñoom noonu la ñuy def lu si bëri seen recherche scientifique yi noonu lañ koy defee ñoom université yi booy nooy def recherche moo ma ne est-ce que du CBDC bi nañuy préparé am na bitcoin ñëw na depuis 2008 wala 2009 donc noo ngi doon wut ay alternative pour loolu moom soo moytul loolu la mën a doon peut-être leneen la aussi tamit. honnêtement man nag dama sopp damay expérimenter toujours je prends des risques à personne c'est personnel pour faire pour comprendre. Quoi. ouais coup on, on passe à autre chose euh, merci encore si intervention bi Baye Ibra c'est vraiment am na solo parce que lii lañ soxla aussi plusieurs points de vue quoi mais bañ di nekk fi man rek di wax di wax bala il faut vraiment ñenn ñi tamit confirmer yenn affaire yi wala joxe seen point de vue c'est ça qui est important donc euh, ñu dem si Babacar après ñu dem si Emery Babacar Babacar ñu ngi lay nuyu. amul benn problème amul benn problème merci beaucoup Babacar ñu ngi lay nuyu. Baye Ibra na def ça bon écoute merci beaucoup ah léegi man euh, j'avais deux questions benn bi ça concerne un peu le cas de bon j'ai voulu monter pour poser ko à Baye ci kaw. Baye avec deux A parce que dañu mës a partagé benn kii euh, à sunu bay ah sunu mbay donc euh, mu doon expliquer un peu que voilà euh, avenir agriculture en Afrique euh, c'est sur c'est c'est ça repose sur la blockchain en fait maintenant man li ma bëggoon xam malheureusement j'ai pas pu suivre les développements sur ça léegi je sais pas si est-ce que c'est permis dans la room bien vrai que Bitcoin SN le les bases est-ce que on peut glisser un peu sur la blockchain de façon générale quoi particulièrement ci point euh, agriculture euh, ak euh, kii blockchain naka la blockchain mën a permettrait le développement de l'agriculture en Afrique bon beneen question bi peut-être Nourou bon yaa ma ko inspiré parce que sànq yaa ngi wax un peu ci ci ci ci ci ci absence de possibilité des gouvernements wala qui que ce soit mu mën a saisir euh, sa ay bitcoin bon maintenant dans l'histoire on a vu quand même des bitcoins ont été saisis par des États y compris ay France wala encore ay États-Unis bi ci mujj je crois euh, ñoom ils ont saisi des des des des bitcoins ba pare ils ont même expliqué que voilà Euh, aujourd'hui am nañ technologie boo xam ne avec euh, en complicité ak mooy la la SEC quoi mën nañu saisir bit nit en fait ku yor bitcoin foo mën di nekk bu fekkee c'est un brigand wala quelqu'un boo xam ne ci il œuvre dans la fraude mun nañ saisir say bitcoin après voilà maintenant je sais pas ñoom ils font référence à quoi wala ban technique la ñuy utiliser comparé ak le fait que ñu ne bitcoin euh, boo ko amee kenn mënu ko saisir en ñoom donc comment ils font un pour euh, saisir ces bits ba pare y'en a même am xam ne dañ koy servir ba pare di ko di ko def euh, ay ventes aux enchères quoi parce que c'est les cas que j'ai vu en France ak Londres également police Londres ak police française quoi merci beaucoup Nourou ak euh, Baye donc déjà ma répondre sa deuxième question bi après ma bàyyi répondre sa première question bi parce que la question était destinée en fait gars yi du ñu saisir bitcoin yi clé privée yi la saisir c'est-à-dire que nit yi que ce yi ngay wax nii wala ñeneen seeni clé privé dañ koy bind si ay papier wala boog dañ koy def si ay clé USB wala boog dañ koy def si ay disque dur externe donc force de l'ordre yi suñ demee attaqué gars yi takk jàpp leen dañuy fuyee seeni gaale loolu la ñuy saisir donc suñ demee ba saisir clé privé yooyu noonu am nañ donc le pouvoir de de les déplacer donc jaay leen beneen nit après yónnee leen ko tu mais tu peux pas saisir les bitcoins d'une personne comme ça faille bi benn rek la muy clé privée bi instant bi nii les gens parlent tamit de mécanique euh, post quantique te loolu tamit malheureusement ki moo si ki moo si mën a gën a wax mooy professeur Ousmane dinaa ko invité réellement te loolu mooy ce serait quoi parce que une clé privée elle est déterministique tu vois ça sort une fois benn clé privée ça sort une fois amul benn doublon wala benn triplon tu vois xaw ma na xaw di triplon Donc, étant donné que ça sort une fois, algorithme bi koy générer il faut déjà que tu sois capable nga xam algorithme bi ni comment ça fonctionne ba pare nga def de telle sorte que mu déboulonné ko tu vois de telle sorte su ko doublonné yow tu as la copie donc de ces clés privées donc tu peux déplacer les bitcoins mais loolu instant mini amagul loolu amagul instant mini bitcoin en terme de cryptographie il y a dedans donc curve tu as SHA 256 et euh, y en a deux autres yoo xam ne fàtte naa tur bi très sincèrement donc cas bi ngay wax nii man je pense plus et je crois à quatre vingt pour cent que loolu la que gars yi dañoo jàpp juste clé privée wu nit yi fan lañ ko denc ñu saisir leen après ñu déplacer bitcoin yi quoi donc pour ta première question maa ngi bàyyi je laisse la parole à Baye quoi. ñoo ko bokk. waaye ku ngi nuyu nañ quoi defe naa que tamit bu doole si yaakaar naa ne quelquefois tamit mën affaire yoo xam ne peut être ay ay ay exchange de ay exchange plateforme de ay ko jàppee xam nga loolu am na tamit mais xam na ne am na yu mel noonu ay amoon na ak yeeg réseau si lu mel ne ay Charlie Chain ay bit bit xam nga amoon na yàgg loolu c'est presque au cité au début na effectivement nu ko nu ko nu waxee ku ñu jàpp yaakaar na ni sa secteur privé. léegi xam naa police comme ak seen mot de vérification mën nga mën nga mën nga def ak yow négociation soo joxe clé bi nga ñuy def la remise de permis bi noonu voilà ñu lay mën dem en général mais wala voilà ñu wala wala defal di def di la ñoom en général peut être par rapport ak gars yi yaakaar peut être dañuy def ay infraction mais pour nga dugg directement am technologie pour noonu pour l'instant yaakaar naa ni euh, gisaguñ ko. li si nekk mooy peut être euh, probablement post quantum bi xam naa ñu doon wax te loolu yaakaar naa ne fi ñu waxtaan si professeur Ousmane léegi nag li jëm si mbirum mbay mi yaakaar naa ne loolu si ñu Nourou si mën na si xam naa séance léegi moo si wax mën naa si waxtaan benn yaakaar naa ni euh, à part la blockchain itam am na si mu def loo xam ni beaucoup de choses yoo xam ni maanaam maanaam ni ñuy ni ñuy arrosé plante yi ak ñoom seen par rapport ak ay ay senseurs yi nekk si biir tool bi ñoom seen <coughs> euh, ay capteur de température wala ay drone yuy naaw. di surveiller tool bi di seet euh, yan plante li ñuy soxla yan li ñu soxla ak information ñoom seen yaakaar naa ni grosso modo noonu la nu ñu mën intervenir blockchain li mën si maanaam si mbay am lu mu si dolli jërëjëf. Euh, bon man je vais être un peu en ak yow man je vois pas trop use case maanaam quand on parle de blockchain mooy benn système boo xam ni. c'est décentralisé ay nœud dañuy éparpillé wu après ñu mën a échanger ay valeur tu vois benn affaire la mën a jàppale mbéykat yi par exemple au Sénégal mooy ñuy mën a accepter des paiements en crypto-monnaie de telle sorte que ñoom dinañ mën a am une clientèle internationale parce que instant bi nii problème majeur bi nga xam ni moom la commerçant sénégalais yi am mooy que waa ci biti duñ la fay CFA tu vois soo defoon sa benn i commerce site de e-commerce ni euh, nga def ko en franc kenn du ko ñëw jënd parce que gars yi amuñu franc CFA seen biir dëkk yi tu vois alors que kenn ko nga xam ne il fait un site en euro c'est facile d'avoir les euros donc nit mun na ñëw jënd ko ak sa carte visa ak yooyu tu vois même su instant bi ni maa ngi gis des solutions qui utilisent de plus en plus les cartes là mais yëgaguñ foofu noonu donc un agriculteur sénégalais lan la mën a utiliser mooy la crypto-monnaie en général principalement bitcoin pour mën a accepter ay paiements de l'étranger sans problème parce que nit mën na ñëw mbay au lieu partenaire bi di ñëw ba ci biir Sénégal pour mën a jënd mën na yónnee kenn mu ñëw vérifier à l'avance après mu yónnee la ay bitcoin au lieu d'un virement bancaire qui peut prendre plusieurs jours et qui va demander plusieurs contrôles au niveau de la banque ak yooyu quoi ma loolu laa si mën a gis mais quand il s'agit de la technologie entre guillemets blockchain derrière sincèrement instant bi ni may wax ak yow je vois pas nan la si mën a kiiwee après je sais pas si d' autres personnes ont des ont des contributions Tutmosis bëgg na si wax je pense. yee dama bëggoon wax si li nga wax mooy mbirum baykat yi daal ak ñi nekk Afrique te bëgg def échange ak ñi nekk à l' extérieur léegi gouvernement bi xam na chaque jour gars yi dañu naan seen gerte yi du jar wala yooyu moom mënul ñëw ne par exemple day tijji benn compte bitcoin. léegi mu ne jaaykatu gerte yëpp neen ñëw jox neen gerte bi léegi moom mu jaay ko à l'extérieur mu wax neen ni par bitcoin lañ koy jaayee ça veut dire boo bëggee temps de tonnes temps de bitcoin lay doon léegi ñoom bu ñu ko viré après moom mooy échanger bitcoin boobu en français fa wala dollar mooy xool après mu distribuer ko ku si nekk part bu mu am est-ce que loolu solution la daal. waaw mën na nekk euh, solution mais warul jaar ci gouvernement bi quoi warul jaar si gouvernement bi franchement quand on parle de bitcoin il doit pas y avoir une entité centrale nit yi ñoom ñoo war a gérer seen bopp maintenant aujourd'hui il est très facile pour nit ku nekk télécharger benn application ci téléphone am mu am un portefeuille virtuel de telle sorte que kenn su ko bëggee yónnee bitcoin da koy trans da koy transmettre juste adresse am comme ni ngay joxee sa numéro téléphone soo bëggee nit SMS la wala woo la c'est simple comme ça léegi principal yi principal difficulté bi au Sénégal mooy nit ki ne man nan laay jëlee samay bitcoin ma transformé waat leen en CFA instant yi looloo manqué solution yi mel noonu ñoo manqué donc man loolu laay gis comme alternative comme avenir en tout cas comme lien entre l' agriculture et ce monde là des cryptomonnaies ak yooyu Baye je pense que da nga am loo bëggoon wax. dama doon soutenir wax données yi ñuy dégg par exemple au niveau des tool yi dina dina température yi ak agriculture ak saison yi man est-ce que mën nañu koy mën nañu ko def ay euh, loo xam ne dañuy dégg ay euh, yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen yeneen données yi xam ne ay détails yi xam ne day nekk day concerné tool bi def koy mu nekk ay ay euh, je dirais pas smart contact xam ne <coughs> xam ne voilà ñu nekk mën a nekk mën a wala lu jëm sax si mbirum suuf d'abord suuf si. mi ngi moom suuf si délimité ko pour ay réel maanaam euh, domaine foncier bi pour lonk si si blockchain bi yaakaar naa si possibilité ko ku si si si suuf bi mais au delà de bay bi mais suuf bi en général mën na appliquer aussi cadastre maanaam faire de telle que benn titre foncier benn copie rek moo am partout au Sénégal et pas nga gis benn terrain trois titres fonciers yu bokkul instant boobu noonu waaw. tu vois les gens peuvent utiliser cette solution là Ghana musoon nañ def expérimentation boobu noonu instant bi ni sincèrement xaw ma fan la mujj déggoon naa Kenya tamit defoon nañ ko donc voilà quoi alors Babacar je sais pas ndax li ñu wax nii yëpp ça t'a servi à ça t'a servi quoi